Sénégal euh, alors euh, suñ mënaatee am li nga xamné que modi affrontement yi nga xamni ni on force saanu Koungheul ñu daal di ñëw ak euh, rebondissement yi nga xamni ni itam am na allant dans sens euh, xamné nak nag force saanu Koungheul nag responsable politique bu APR bi moy ki nga xamné que modi di euh, Fanta euh, Sall euh, mom nak moo exactement li nga xam nekk moo responsable politique bu APR Force Suzanne Koungheul donc nak après l'attaque du convoi Bousman Ousmane Force Suzanne Koungheul ki nga xam nekk Fanta Sall à la dernière minute nag genn na di daal démentir son arrestation ki nga xam nekk moo Fanta Sall néna musuñu ko arrêté exactement mom ki nga xam nekk Fanta. Euh, à quelques heures euh, di rumeur muy daal di circuler exactement euh, une rumeur selon laquelle la députée bu de liste bu coalition takk war donc la jàffoo si Kungel, Koungheul euh, moom ki nga xam ne que moo di Fante nag koy di et se porte à merveille d'après li n'a xam que révélations euh, l'intéressé est sorti euh, de son silence pour apporter éclaircissement autour de son arrestation mu ki nga xam nekk Fanta jàpp Lol amul mi ngi daal démentir boobu li nga xam modi rumeur donc ki nga xam nekk Fanta euh, nee Mom moom moo di apprendre ak li nga xam sénégalais yi mettre ko exactement en position garde à vue foofu saanu ko commissariat bu kungel mom ki nga xam nekk Fanta kaddu la di yëkki ginnaaw ban daal di jàppee di communauté li nga xam moo euh ces assaillants ñu doon dal ci Ousmane Sonko dem bay toj li nga xam que modi ay vitre dem aussi bay daal di kayase li nga xam que modi ay moto man euh, sans plus tarder je vous propose justement de suivre ces images là ñu daal di ñëw si li nga xam nekk moo conséquences yi nga xam après yi fii am na vidéo vidéo bi taxaw na vidéo vidéo bi taxaw na de. Nandito.

ak takk wàllu su nga waxee nag maanaam leen daal di changer affrontement yi nga xam na force daanu ko kungel nak moral ñi daal di reprocher deux commissaires que ni respecté ñu exactement euh, les dispositions douane pour daal di prévenir yooyu dañ dina n'a ne que scène de violence électorale la bokk na ci ki nga xam que euh, commissaire bu urbain bu kungel di ki nga xam ne que moo Ousmane Seydi momi tam mujj nañ ko daal di affecter force daanu commissariat central bu comme adjoint au chef de service bokk na aussi si ki nga xam que commissaire Balfal, Fall mu chef du commissariat central euh, de Kafrine, moi itam mujjee nañ ko affecté. affecté faut la ko direction générale de la police nationale au ministère de l'Intérieur pour les décisions décision daal exactement concerné le commissariat urbain bu Koungheul dépend euh, mu daal exactement ce commissariat euh, central de Kafrine. pour rappel il y a nga liens nekk affrontement entre les militants de Pastef et ñi nga de ne itam ñoo coalition di coalition Takku Sénégal amoon na niki li nga xam

Euh, parti grand euh, parti être itam on daal di ki nga xam nekk mu Ousmane Sonko sélection euh, législative exactement mu nek aussi tête de liste euh, bu nga xam euh, nekk Sonko nek tête de liste bu coalition Pastef aussi amna aussi ay biens yo xam ne itam yàq nañ ko fa bok na si ay moto Jakarta il a fallu donc l'intervention des forces de l'ordre pour daal rétablir le calme fof ci daanu ki nga xam nekk Modi Kungel. les deux camps nak ku si nekk yaa ngi accusé sa moro way tam ku si nekk yaa ngi annoncé sa plainte bo xam ne itam bëgg na ko à l'ensemble dans sens Fanta mi ngi annoncé plainte waaye itam ki nga xam nekk mu di si bi euh, ko plainte ñoom ak ñi nga xam ni itam euh, ñoom leen daal di àndal exactement si boobu de convoi sant gërëm ñenn leen ñeel képp ki nga xam ni itam jàppoon nga si mbokk ba xibaar yi daal di war a mën a yem li ma nekkoon tey seen édition spéciale li nga xam ni itam gën a fi daal di fa si semaine bii di leen jaajëfal bu baax baax année bi saa su nekk ak